juróom-ñaari waxtu jot na ba taftal fanweeri simili ak ñaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd xibaar marax yi ak ponk yi ca gën a fës di lycée Charles de Gaulle ba nekk ci diwaanu Ndar géej gone googu ngeen di seen di Mouhamadou Mbaye moo fa faatu ca salle de gymnase bu mu doon tàggat yaramam euh, ba mu daanoo ñu ne loos moo damm ab néewam euh, jëbal nanu ko ay wayjuram ca lycée baak njabootam ñëpp sëngeem ànd ak xol bu tiis ak naqar ab dënnu euh, ca xat di néeg yu bari ba noppi itam euh, di fa ay garab indi fa ay yàqu-yàqu ay doomi dama euh, ñàkk ca seen bakkan noonu ngeen gis noonu la ñu dundee njaboot ga ne tumuranke ganasi na leen ba tax na ña ngay tàllal loxo euh, képp ku leen mën a jàppale ci mbir moomee ndax nee ñu jafe-jafe yi ñuy dund métti na beneen ponk mbokk yi muy nguur ak Sénégal ak itam projet de loi bu bees ba mu yóbbu ca taabal ka jiite pencum ndawi réew ma loole nag fas yéen nañ code électoral ak nan fi fas yéene euh, jële parrainage lu ci mën a am euh, kujje gi ne loolu mënuñ caa ànd ndax ak euh, waxtaanee su ca ba juboo lu ci mën a am liggéey bi daanu ko tàmbali altine bi nu dëkkmal Habib Faye ak Younous Diatta doxantu nañu ci mbedd yi ci Ndakaaru waxtaan ci ak askan bi ak gis-gis ba ñu ca am lu jëm ci wàllum caada ak doomu Sénégal bi xaatim ab téere Amadou Diop lay wuyoo dippee ko la du pain mu fas yéene waxtaan nag ci roman boobilee euh, ci tolluwaayu àddina waaye ña muy gën a waxal di ay naataangoom di ndawi réew mi lu jëm ci wàllum liggéey bëgg sa bopp bëgg sa réew waaye itam am yéene jiite ay bërëb loolu yëpp euh, Pafaxa Ñing ak Amadou Ba yëral nañu yenn ci ay xëtu euh, boobilee téere tàggat yaram ak beach soccer ak mondial ba nuy amal Euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sunu gaynde yi euh, ñu ñu fas yéene bokkal poule euh, di Uruguay ak Oman ak Portugal ci fàttali ne ca réewum Russie lay amee fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut daan ciy dellu siwaat tirage baak gis-gisu ñi seen xam-xam màcc jëm ci boobu lee tàggat yaram mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taax yi lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetloo te ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy euh, junjee ak ku tiis muy euh, la am ca kamb euh, di as gune gu jigéen koy atam tollu ci ñaar fukk moom nag moo faat boppam dafa xaru daal nee ñu ci dëkk bu ñu naan Mbeloñ Samba Deba nekk nag ca commune bu kamb ca département bu Linguère ñu ne gune googee doon wuyoo ci turu Xarjata Ba dañu ko fekk mu takk boppam ci garab ba sax ab ne néewam euh, jël nañ ko ba yóbbu ko ca morgue bu euh, hôpital ba nekk ca diwaanu Daara rédaction euh, télévision Futur Média ngeen baal ma ci sama kàddu di jaalaay mbokkam di jaajëfal Mouhamadou Moustapha Ndiaye toogal ñu ca diwaanu Linguère moo nu baaxee bi xibaar ñu des ba tey ak tis bi ak beneen ponk bu ñu leen junj ca lycée Charles de Gaulle gune gu ñu naan Mouhamadou mbay euh, nekkoon ca classe su première moom euh, moo ñàkk bakkanam ci fa mu doon defee tàggat yaram ca salle de gymnase ba nañu daal ba mu daanoo los wa moo damm moom gune gi mu dal di faatu fi saa si euh, jébbal nañu ab néewam ak njabootam foofee ca lycée Charles de Gaulle ba nekk ca diwaanu Ndar Géej sëngeem ak xol bu tiis moom la ñu fa nimmeeku ci ay njabootam itam naka nataal télévision Futur Média Ousseynou Diop ak Habib Seck la. Mouhamadou Mar Mbaye élève la nekk ci classe première ci lycée Charles de Gaulle mu ji génn àdduna ginnaaw ay cours gymnase yoo xamante ni def na ko ci kër gi nga xamante ne fa la dëkk ñu yëkkati xasida yi. ci beneen wàll ga njaboot gi nekk ci naqar. yàlla àjjana fi daw si ndoxalu suñu borom la nangu nañ ko bu baax nekkoon nag xale boo xam ne am na diine am na lislaam yaru na il passe inaperçu koo wax mën la marsen am na yar bu doon mbee nuyoo na tànt daal dem gos bu doy waar gos bu particulier parce que yaru woon na amoon na kers moom nag témoignage yi benn la xale bi nga xamante ni ci classe première la nekkoon ci lycée Charles de Gaulle ku yar la woon teey am itam diine ci lycée bi nga xamante ni sax fa la jàngee professeur am ak ay xaritam di témoignage ci moom. très discipliné. li xew métti na métti na loolu ndaxte man bokk na ci xale yi nga xamante ni dañ ma respecté woon ci biir classe bi bu ma daan ñëw bokk na ci ñee njëkk a jug kon lii moom dafa doon loo xamante ni métti na ci classe bi yëpp. waaye maar baax. nit ku yaru nit ku teey foo ko fekk benn jikko nañ ko mën a seddeel il est souriant heure boo ko soxlaa ne ko booy kaay jàppale ma sama euh, sama enchaînement moom mooy première personne première personne bi taxaw pour jàppale la. Mamadou Mar mbay nag nekkoon na xale boo xamante ni ku yaru la ci lycée Charles de Gaulle bii fi la ñàkkee bakkanam yi nga xamante ni yéeneen yàbbi ci mbir ma nee naan ci sëpp galañ yi ma doon def ci la baat ba dammee ba mu ñàkk ca bakkanam. Mouhamadou Mar Mbaye xasida yi borom Touba ma ko gunge ñu koy ñaanal borom bi euh, jéggal ko bépp rëcc rëccam te xaare ko aljana firdawsi moom ak képp ku mu fekk barzak wala ku ko fa fekk télévision Futurs Médias e ci sama kàddu di ko jaalewaat ak njabootam waaye itam ay naataangoom yemu bokkaloon euh, lycée Charles de Gaulle ñu wax ci euh, leneen muy nag euh, ngelaw lu ànd ak dënnu moom moo wàcc foofee euh, ca Karsia ba yóbbu fa ay xaddi néeg yu bari ëpp nañ sax téeméer ci ay néeg ba noppi itam bu di fay garab ne ñu yamu ca ngelaw loolee itam indi na fa ay gaañu gaañu di ay doomu aadama yu fa dëkk ñu ne tumuranke da leen a gane si ba loolu amee ba léegi ba tax na ñuy tàllal loxo ci kilifa yi ak képp ku leen mën a jàppale ca bët mu réew mi dañuy dem fekki fa Bakary Konté ak Xali Jàmme lu jege ci fukk nit ñoom nag am nañu ay gaañu gaañu yu métti mun am nag fukk fukk kër yoo xamante ne seen toiture yi nag ngelaw bu métti moo ko daal di yóbbu mu am sax ay kër yi daanu garab yoo xamante ne ñoom daanu nañu loolu nag moo nekk bilan bu fi am ci tornade bu mag boo xamante ne moo amoon fii ci diwaan Karsia ci commune bu Diannaba. jaxare bu rëy moo ñu dal tey ngelaw bi dafa ëpp doole. ñëw na yëkkati yàq lu mu fi yàq daal bëri na. ñun si jaaxare lañu nekk ay kër yu daanu ay nit yu ga eh, yu blessé loolu yëpp gis nañ ko fi zinc yu bëri naaw nañ yàlla rek moo si def sutura mais pakkan xëj na fi des am na ñu blessé man sa man sa ay blessé bëri na man mi wax yow sama grande sœur brique moo daanu si loxom bu càmmooñ bi léegi sa jaxare la nekk démb dañoo amoon fii euh, Euh, benn ngelaw ngelaw bu am doole ngelaw boobu dafa amoon beneen jafe-jafe ki population yi parce que am nañu suñu habitation yi yëpp yàqu nañu et am na yeneen garab daan nañu tamit donc fu ñu toll nii am nañu ay gaañ-gaañu bu metti sax si euh, affaire bi loolu tamit vraiment euh, affaire bi duñu dañu jaaxal parce que vraiment un tel vent mun mun musuma ko gis. population yi nag di ñaanu gouvernement bi ak personne de bonne volonté yi ñi daal di leen jàppale. am na yeneen population yi amuñu fa sax fu ñu war a tëdd sa loolu moo nekk suñu jafe-jafe yi léegi fu ñu toll nii eh, lu ñu bëgg mooy appui. zinc yi ay ciment yi ay matelas yi ak yeneen yi même panneau solaire yi bëgg nañu ko parce que gis ngeen beneen panneau solaire yi dañu yàqoon. bëri na ci ay village ci commune bu Diannaba fu mel ni ju ñaawle ñoo xamante ne ñoom ñëpp tornade bi daf leen laal sinistre yi nag tiit ak jaaxle xamatuñu fu ñuy jëm ñu bëgg nag ci nu mu gën a gaawee autorité compétente yi daal leen jàppale ñi jënd ci jafe-jafe yi ñu nekk. Bakary Konté askanu Janaba ñu leen di mastawu ci euh, loolu dal seen kaw ñu des ba tey ci nawet bi ak mbuur nee ñu nag station météorologique bu bees ba euh, daloo nanu ko ñu xayma ko ci ñeent fukki million ak juróom-ñett euh, nee ñu sax nag la ko tax a jóg mooy rek joxe xabaar yu wóor aju ci wàllum napp gi wàllum tourisme waaye itam mbay mi duñ ci sori dañuy teewlu Alioune Sarr jëwriñ bi ñu dénk wàllum tourisme ak dem beeg dëkk bi ci jaww ji kàddu yi. yi Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ña toogal euh, groupe Futurs Médias ca Mbour la ko dénk. d'un coût de 48 millions de francs CFA entièrement financé sur budget de l'État Euh, centre bi nag am na salle d'observation parc bureau chef de bureau ak magasin bi nga xam ni ci la ñuy def yenn euh, bagages yi ndax xam ngeen ci lu jëm ci wàllu météo am na njëriñ njëriñam moom mooy dinañu fexe ba nga xam ni dañuy xam jaww ji ak gi ni lan la war a joxe te xibaar yi nga xam ne tamit dinañ ci am dina amal njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum tourisme ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum napp gi ak ci wàllum mbéy mi ndax dinañu xam lan moo war a mën a nekk seeni taxawaay te jamono ji ñu tollu jaww ji ak xeet ginimel ni saa su ne day soppeeku li sax a tax ñu war a am tamit ay jumtuwaay yi nga xam ne dinañ ci bàyyi xel ba nga xam ne dinañu xam nan la ñuy taxawee ci mbir moom loolu moo tax nag euh, ñu fas yéene moderniser équipement yi plan boobu boo xoolee jël nañ ci lu toll ñaari téeméeri millions yi nga xam ne war nañ ko tas ci région yi maanaam fu centre yi am waaye tamit fexe ba nga xam ne ñu yokkaat yenn jumtuwaay ngir ñu mën a sóoraale li nga xam ni ñëwagul météorologique d'un coût de millions mais d'améliorer les outils de prévention de prévision météorologique. aywa ñu wax itam ci leneen muy société civile bi jàpp rek ne lu jëm ci euh, nag euh, càmbar wala itam xool euh, sunu politique yi maanaam contrôler leen ak yooyu ne ñu daal dañoo gis ne loolu ñaan participation citoyenne taxu ko am solo COSIDEP forum civil ak ONG 3 ñoom nag dañoo bëgg rek daal di taxaw ay mbir yoo xam ne daañu mën a waxtaane wala boog ñu liggéey ba lépp leer ci boppu askan wi. ñu nekk itam ci ab campagne boo xam ne euh, dañuy ñaax askan wi ci noonu dañuy teewlu Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D ay kàddoom Mouhamed Dieng ak Maymouna Ndiaye la ko denk ñëpp xam nañ ne démocratie représentative dafa am ay limites ndaxte bu yàgg bu euh, bu fekkee dafa am lu ñuy wax concordance de majorité maanaam bu fekkee ne euh, gouvernement bi ak assemblée député yi ñoo bokk majorité en général loi bu ñëwee rek day jàll. loolu moo waral contrôle citoyen am solo ci réew pour que ginnaaw liggéey bu contrôle bi député yi di def moo am ay citoyen yu farul fen di mën a saytu li nga xamante ne moom la nguur di def moo ma waxee nag nguur mooy ci niveau gouvernement ci niveau central mais aussi ci niveau collectivité territoriale ci député yeex yooyu tey jii boo xoolee am na liggéey bu am solo bu feeñ ci code électoral bi mooy que léegi askan bi ñooy fal maire directement ñooy fal président conseil départemental loolu dina tax euh, ñoom ñu gën a xam ne askan bi lañ fi nekkal nekkaluñ fi surtout parti foofu la ñu war a toll dem ci waxum député yi fexe ba député yi di sentir ne ñu changé nañuy fale falee député yi ba euh, askan wi gën am taxawaay ci ni ñu leen di fale ñu gën a sentir ne askan bi lañ fa toogal que parti politique aywa ñu wax itam ci ponk bu ñu leen junjoon muy gouvernement bu Sénégal yóbbu na ci taabalu ko jiite pencum ndawi réew mi ab projet de loi ngir ñu càmbar ko loolu nag daan ci waxtaanee ñu ci projet de loi boobu mu soxal euh, code électoral beeg seen bëgg-bëgg ñu jël fii parrainage ak itam euh, na ñuy fale maire lu ci mën a am ku jëgg ànduñu ci ndax nee ñu euh, liggéey boobee ñu yóbbu ca pencum ndawi réew ma waxtaan woo mu laajoon amu ca lu ci mën a am liggéey bi altine pencum ndawi réew ma Habib Faye ak Younous Diatta waxtaan ak ñenn ci askan wi ñu teewlu euh, seen xalaat bi ñu am ci mbir mi. national ndax ñi nga xam ne ñoo fi am ay député muy parti yi nga xamee muy député yëpp ci opposition bi demuñu woon ci dialogue bi ba tax na kon. jàpp naa ne loolu bu ñëwee dañu koy jël rek taxañ ba mu àgg ñu sànniwaat ko ca poubelle ba nun opposition bi danañ ci wax comme maa ngi doog a jógee conférence des su ma génnee danaa consulter suñu groupe liberté et démocratie bi nga xam ne moom laa jiite mais aussi danaa consulter député yi nga xam ñoo nekk ci non inscrits pour que ñu toog waxtaan xool nan la ñuy jàkkaarloo ak ñii dialogue national ci dialogue bi mu am commission boo xam ne dafay liggéey ci les réformes institutionnelles di liggéey ci mode élection yi di liggéey ci lu bëri donc nag ñu woo ñu pour tijji rek session bi président Moussa Bañes on nañu tijji nañ session bi li des mooy comme ni mu ko waxee léegi ñu dem rapidement la conférence de président ñu réunir daal di xool ban bés la ñuy jàpp pour commission technique bi ndax xam ngeen ne commission technique fa la ñuy càmbaree code euh, projet de loi bi nga xam ne mooy code électoral bi donc euh, muy commission boo xam ne muy kuje gi mu ñu ànd ak euh, nguur gi. muñ tëddee jaaxaanaay ñun ñëpp mën nañoo mën a am suñu temps xool document bi interroger nga xam mooy ministre de l'intérieur. ki neexul am na droit ne lii neexuñu ci ñu def amendement pour dindi ko loolu yëpp am na moom daal code bi defarugun ko pareegul. nan ko nekk dañ ko war a indi waxtaan fii waxtaan nag bu ñëwee ñëpp ko bokk boo boo ko waxtaan boobu nag mooy waral tey lépp loo ci naqari nga ne lii naqari ko ci loolu am nañu pour am nañu loolu ko mais tey nag nanoo jàpp ne daal incha allah rabbi fii ak semaine prochaine bu soobee yàlla lépp daal am incha allah dana leer aywa mu nekkoon euh, gis-gisu euh, ñenn ci député yi moo xam ñi fare ak nguur gi wala ñi fare ak kujje gi ci euh, projet de loi boobile ñu wax itam ci mbas mi ak variant yu bees yi ne ñu téeméer boo jël ci réewi àddina bi juróom-ñett fukk ak juróom ñu ngay dund ak Covid 19 ak xeetu variant yu bees yi ci génn ñu ne ñoom nag ñoo gën a gaaw a wàlle ba noppi si tax dàqu ñu dugg ku ñàkku ba noppi ne ñu sax ñetteelu. doosu ñàkk bi eh, fi mu ne nii dàqee sukko bu nu sukkandikoo ci ñenn ñu seen xam-xam ci jëm ci wàll wi eh, laaj bi ñu samp mooy naka la ñuy def ba eh, dendop Afrique bi réew yu ci mel ni Sénégal ñu jox leen ñàkkee ca war ñu ne fulla gu mat sëkk lañ ci fas yéenee àndal wala boog moom lañ ci war a àndal bu nu bëggee am saafara ci bilee jàngoro duñ ci sori dañ ci ànd ak sunu bàjjenu gox Fatou ne dem ak Modou Diop ci gëstu bi doomu jàngoroy coronavirus bi nag ak ni muy soppeekoo ba ci nag bi ñu duppee variant delta jaaxal na lool àdduna wërngal këpp jàpp nañ sax ne kaa yi nii mu yokkoo jamono ji variant bii di delta moom moo ko waral ñi nga xamante ni ñoom ñooy gëstukat yi nag nii muy soppeekoo sax daf leen jaaxal. léegi dañoo seetlu ni virus bi dafa changé camp xale yi moyenne d'âge vingt cinq ans yi vingt sept ans yi vingt six ans. la gën a jàpp ko mag ñi lan moo tax xam nga la moo tax parce que ñax mag ñi la ñuy commencé ñax mag ñi ñoo ñaxu cinquante ans jëm kaw la ñuy commencé ñax moo tax cinquante ans jëm kaw vari variant delta bi def fa benn dégât. li ñu njoxtu ci variant bi mooy ndax ñàkk yi mënal nañu ko dara am na sax ñu xalaat ni ñetteelu dose nag mënta ñàkk waaye bu boobaa Afrique fan la jëm. laaj yi samp mooy lan moo war a doon euh, taxawaay suñuy njiit. Afrique bu ñu góor góorgóorluwul bu ñu gaaw a jot ñax yi ah loolu dama koy wax fii dañ ci war a taxaw léegi léegi léegi léegi léegi nu mu gënee pour ñu gën a gaaw jot ñax yi am nañu voix danañu dégg mais mais il faut que ñu jot ci fi mu nekk nii. Euh, fii ci Sénégal limuk askan wi ñàkku nag xayma nañu ko ci juróomi téeméeri junni yu teg juróom benn fukk ak juróom ñaar ak juróom ñeenti téeméer ak juróom ñett ñu ne nag dëgg la ñu ngi defi jéego waaye li des dafa bari. c'est 3 pour cent de la population sénégalaise lañ ñaxagum première dose te ñun li ñu soxla mooy 70 pour cent kon bu fekkente ni 4 3 4 mois nga ñàkk 500 000 personnes un an ngay ñàkk 1 million 500 000 personnes loolu moo fi nekk te un mois boo ba defee un an te 10 pour cent environ donc pour nga pour nga am 70 pour cent kon day nekk juróom-ñaari at bi loolu kenn kenn du attanu ko juróom-ñaari at boo ko nee def. gis nga vagues yi dinga ci am ba doyal aywa ñu wax itam ci leneen muy gëstu boo xam ne dañu ko jagleel càmm càmm gi ñu ne nag fi mu ne nii euh, dañoo gis ni euh, ay ndaw yu bëri dañ caa dugal seen pole loxo euh, ñenn sax nag ci njaayum xar yi fii ci ndakaaru gis nañu ne daal fi mu ne nii ñoom ñëpp dañ koo bëgg moo tax ñu soobu ca ñu tàmbalee ci lu ndaw tey ci ñenn ca ñoom ña ngay sant yàlla waaye nag jàpp rek nañu ne nguur ak Sénégal war naa dugal loxo loxoom ci euh, càmm gi ba jàppale leen euh, ci liggéey bi Mamadou Fall lañ ci àndal ak Gervais Yao ñu mel ni ñu bokk destin bokk benn passion mu mujj doon seen métier métier buy dundal ñi ci yëngu nekk loo xamante ni lu leen di géntu loola ñoom ñaar virus bi mu ngi leen dugg daanaka jaar ci seen ñoñ. bon li ma si dugal moom dèjà amoo am élevage amoo am xar yi xam nga après ma si dugal nànk-nànk di jaay par benn ñaar ñett ma gis ne am na njëriñ quoi léegi ci laa yi mag. di dugg pour suñu papa ji image bi ngay gis suñu papa ji li si ëpp li moo ñu gën yi dugg si xar yi parce que si lañ ko fekk suñu judd maa gis. Ousmane Diop. depuis loolu mat ay vingt ans wala vingt cinq ans. ñu dooree. ak lu néew tey jii nag góor góorgóorlu ba am lu toll lii ci troupeau mu di xar yoo xamante ni njëg gi kawe na loolu ah, fii wàññi boo gis si benn lay commencé am na ñu commencé si ñaar mais alhamdulilah macha allah léegi euh, ñuy dem ak suñu bopp prix yi euh, am na 700000 800000 ba 1 million am na. maa ngi commencé avec une un budget de 3 millions. Hmm. cela commencé depuis daaw jéeg mais chaque jour. bon su ma jaayee xam nga dama koy denc boo prochain kii bi ma def beneen opération gën a poussé bon bu ñu duggee gis naa ne lu mu bon bon naa si am bénéfice quoi naa si am bénéfice bu xam nga parce que boo boo quinze mille sax lu bari baax na xamante ni faaw ñu suqaliko waaye loolee ngir ñu am foog nguur gi dugal ci seen i yoxu ay jàpp ndaw ñu bëri dinañ si liggéey ñëpp dinañ si gis seen bopp waaw parce que man mi doon am da yow lii nii may def dina am sukk ñu ko gisee bu ko keneen gisaatee si man bu ko tamit aussi damay kontaan. lu ci mel ni ay point de vente sauvage ñàkkum courant yenn ci ñàkk kaaraange di ay facteur blocage waaye yoof moom gis nañ. parce que léegi bu ñu xoolee phénomène wu yar xar yi dafa dafa dafa dafa law si yoof léegi xale yoo gis seen activité bii njëkk mooy bu tabaski paase dañu jënd ay cinq xar six commencé élevé pour tabaski ñoom ñu mën ko jaareetu léegi jeunes yu bëree bëri bëri dañu yëngu si loolu loolu tax moo taxoon ñu permettre leen pour permettre loolu mën a am éleveurs yi am nañ fu ñu nekk mais ñoom tamit ñu jàppale leen ba nga xam ne mën a jaay seen ay xar yooyu. bëri na ci ndaw ñi ñi daw jëm ci élevage ñu jàpp ni sax jamono ji mu ngi toll ci état familial waaye ñu ëpp ci ñoom gis ni bile secteur dañ ko war a suqali rek ba mu gën a yees jàll ci état moderne du Fall ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci wàllum caada ak euh, l'appât du pain loolu nag euh, di turu roman bi Mamadou Diop bind téere boobu nag mu xaatim moom doomu Sénégal bi waxtaan na ci ak ndawi réew mi euh, fonk liggéey gën a bëgg sa réew ba noppi itam fexe daal ba lépp loo xam ne dañu koy laaj ci réew mi mu doon njariñ nga dugal ca sa loxo mën a bokk ci xeex bi Pape Faxa Ñing ak Amadou Ba yërëm nañu yenn ci ay xët tase nañu itam ak kiy bind bi la téere ñu teewlu gëstu bi dellu si waat lu tolloog téeméer ak juróom fukk ci ay page yoo xam ne nag du ko bind li mu bëgg rek moo nekk ñaax ndaw Afrique yi naka noonu tamit tax ba bu ñu jàngee ba am xam-xam bañ a daw biti réew di fa toog. Euh, la part du temps maanaam mooy téere bi nga xam ne maa ngi jàpp ni dafa yee ndaw ñi euh, yee ndaw ñi ci le fekk ñu war a gëm seen bopp tamit taxaw pour euh, nekk ay soldaar pour seen réew. et seen dëkk lu mu métti métti métti xam ne seen dëkk ci ñoom lay compter ñoom la am yaakaar te pour man yaakaar boobu ci lañ war a jàpp ci lañu war a gësandu pour su ko defee suñu réew jëm kanam. ngir ñu dakkal li nu mel faaw ñu def ay sacrifice naka noonu bëgg sa réew bu ko defee ñu mun koo développer. Euh, jeunesse bi nga xamante ni dafa dafa dal di tomber ci benn piège piège bi nga xamante ne xamul. du ci biir euh, parce que dañoo am jeunesse bi nga xamante ne dafa xaw a euh, yaakaaram dafa xaw a tas te euh, jeunesse boobu dafa fàtte ni tamit pour mbir mi change pour mbir mi changer ci ñoom la dépendre maanaam mu ngi dépendre ci seen xeex mu ngi dépendre tam ci seen bëgg-bëgg ci seen gëm-gëm moo tax dama naan dama leen di ñaax pour ñu gën a góorgóorlu te xam ni àdduna fépp a jafe. lépp juróom benn fukk ak juróom ci askan wi ay ndaw lañu faaw nag ñoom ñu daal di dem fa ñuy dogalee bu ko defee ñu mën a soppi yenn décision yi. ñu ngi dem ci ay élection euh, ndaw ñi euh, bu ñu fàtte ni ñu ngi représenté 65 pour cent population Sénégal donc war nañu légitimement am ay représentants. Euh, te jàpp naa ne fekkee am nañu ay représentants jeunes yi pour man tam ñooy gën a mën a taxaw pour comprendre jeunes yi. càpp roman bi nag moom Amadou Diop gannaaw ba mu defee dëkk yu bëri foofu ca réew tugal ya moom expérience am la bëgg a partagé ngir bu ko defee ndaw ñi xam jafe-jafe yi nga xam ne moom lay jural soo jàngalee sa doom ba pare mu dem beneen réew di fa servir. Fafara ñu ngi jërëjëf euh, xibaar bu gàtt ci tàggat yaram ak euh, beach soccer coupe du monde ba ñu fas yéene amal ci Russie fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent euh, ci weeru août Sénégal ñamu fas yéene bokkal loolu ñu naan phase de poule muy Portugal Uruguay ak Oman Chérif Diop dina ci dellu siwaat fii ci ak ay simili yu néew ñu wax ci ponk bu mujj bi xam ngeen ne doyen Abdoulaye Diaw juróom-ñeenti fan ak fukki fan di week bi nu dëgmal dañ ko fas yéene sargal fi ci Sénégal taxawaayam ci tàggat yaram kenn dootu ko naatable moom doomu ndar bi mu bokk ci taarixu réew mi rawatina ci tàggat yaram ñi yëngatu ci moom moomile mbir kenn ku ne jëflante na ak moom jëflante bu rafet boo xam ne tey am nga am nga sañ-sañ wax sa xalaat ci ay jikkoom yu rafet ak itam xam-xamam Cheikh bu jara lañ ci àndal. rayukaay bi baatu sport bi ni ñuy dippee Abdoulaye Diaw journal sportif bi. bëri na. mooy kenn ki nga xam ne ni vraiment moom moo contribuer pour que nit yi di xam li fi xewoon ci sport yëpp. bégloo na Sénégalais yi xamloo na na Sénégalais yi muy njëriñu sport. xamal i tamit ñi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci sport bi di si yëngatu te loolu la dafa baax. icône la icône la ci pour ñun journaliste sportif yi donc aussi wane na lenn loo xam ne aussi généralement euh, jar na ñu bàyyi ci xel mooy jarul soxor pour nit ñi xam la jarul soxor pour nit ñi bëgg la donc laay euh, yàlla may na ko loolu donc surtout encore mu envoir voix radiophonique. bokk na si ñoo xam ne tax na ma bëgg journalisme tax na surtout ma bëgg journalisme ngi fàttali bi ma nekkee xale bi moom jël sàcc sama sama sama sama sama rajo yaay jël fil de fer takk ko ci garab ma toog ci li ñuy woowee dindeere ci pulaar ma koy ma ci jaar-jaaram Abdoulaye Diaw wane na itam ay jikko yu tax ñu bëri naw ko. est-ce que Abdoulaye na def ma euh, day question boo xam ne ma dama koy posé sama bopp des fois euh, muy nag ku bëgg réewam ku bëgg réewam ku bëgg sport Euh, ku bëgg sport ku ko bëgg mënuñoo jóge ci sport même déception bu ñu ti am ab Ablaye dina fexe ba defal xol yi ba ñi ñuy fàtte sax euh, naqar bi ñu am. li ma koy ñaan mooy na bind ay mémoire am mu bàyyi ñu ko fii. comme ça la future génération bu ñu ñëwee ñu mun ko saytu ñu xam euh, ce qui s'était passé avant les indépendances ce qui s'est passé pendant les indépendances ce qui s'est passé aux années al juma ak samedi bi senegal dina sargal Abdoulaye Diaw dinañ ko tuddee yoon bi jaar buntu stade Demba Diop bu ñu ci noppee ñu delloo ko njukkal ci biir CICES. doyen lay jaw sàkk la ci réewum Sénégal rawatina ñun ñi mu bokkal groupe Futurs Médias mbokk yi fii lañu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safoo bi ak kóolute bi fii ak ay simili yu néew yi Diop dina fi teew euh, ci xibaar yi ci français jaajëfal leen ci seen safoo ak seen kóolute di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen.